ki leen koy defal seen xarit xaaj njaga sekk di ko ànd ak ay ganam tabaarakallaahu bala ñuy sori rek ñaan yi nu doon ñaanal néew yi tëdd ci bàmmeel yi ñu defal leen ñetti xul huwallaahu ahad benn bu naan ak bismillahi rahmaani rahim ñu def ko te delli suwaat incha allahu taala waaw kay yal na yàlla jotale ci néew yi di ñaanal ñi nekk hôpital te feebar ñi nekk ci selili prison yi ñuy dox te am naqaru xool yal na yàlla waye fal di ziar kuy déglu rajo bi ak foo mën a ne mbokk yi tey nag euh, maa ngi Badar Gueye xam naa nag dëkk la boo xam ni moom euh, ñu sant Gueye <laughs> nee naa leen yii dëkk moom waa kër sëñ Moussa Gueye yar waay waa kër sëñ aadama Gueye ak waa kër sëñ Galaay Jaw ak waa Badar Gueye gii nee naa leen yéen moom xaw lu leen di fi sëriñ <laughs> ngeen romb ma fi doon yi sëriñ doy na waar am naa Assane Gueye bu ko déggee dina la dee waaye tabaarakallahu loolu yëpp aw yiw la Euh, batar nag su ma ko waxee day dëkk boo xam ni dëkku alxuraan la ki ñuy tàmbalee rek nga xam ni man am na lu ma miinan ci moom muy alaaji sëriñ géy raay mu sedd daanoonu daje ngaay ca ndey saan mu sa lool rafet lool fees dell ak alxuraan yàlla dimbali woon ko ba altinay ngaay bu jotee doomu adama ju dara dal lu mu metti metti metti metti booy ñëw boo ñëwee fi moom booy buy raay muy sedd moo tax ñu daan ko wooyee alaaji sëriñ gay raay mu sedd yal na yàlla dolli leeram tabaarakallaahu ñu war a àndandoo nag ak kenn ci njabootam ndax tegu gi mu tegu ci fi mu war a tegu muy sëriñ basiiru géy sëñ basiiru nag di rak ci sëñ saaliwu géy ak eh, sunu xarit boobu yal na ko yàlla dolli ndam eh, ñu war a waxtaane nag alxuraan ak yëfam waaye lu jiitu loolu cosaanal alaaji sëriñ Gueye mu sedd ak taxawaay baag yitte ja ak na mu meloon ci wàllu wilaaya waag baatin waag fu mu dëkk lan mooy cosaanam ay maamam yooyu ci la ñuy doore bu ko defee nag ñu ñëw ci alxuraan ndax sëñ Basiru mii dafa def léegi lu am solo mooy nafar nafar alxuraan di dem ci marché yi di dem ci barab yi di dem fenn fu alxuraan sa wàcc ci yow rek sëñ basiiru di ko def ci tiktok yeeg fu ne mu wane ko fa loolu nag moo waral ñu àndandoog moom ndax danoo xaman way juram xam ni lii rek la war a def su ko defee du ma sori dama lay nuyu rek sëriñ bi di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay siyaara di la wax bismillah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alxaaji njaga ñun tamit ñu ngi bég bu baax a baax ci ànd gi ñuy ànd ak yow émission bii di ganul islaam xam naa nag sant bi moom xaw naa yéeme lool waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin euh, xam naa nag badar moom boo ko waxee moom Euh, dëkkub lislaam la waaye tamit dëkkub alquranul karim la ndax sëriñ xabibullahi mi nga xam ne moo ko sanci li taxoon mu sanc ko mooy jaamu yàlla ak jàngale alquranul karim ndax dañuy wax ni sanc na badar yu bari waaye badar bu mus a dem rek sañc ko su fa nekkee di jaamu yàlla su fa di gisee daray caaxaan wala coow la bari fa da koy bàyyi ginnaaw daal di wutiwaat beneen dëkk sancaat ko tuddee ko badar bu fa demee tamit bu ko fa mbokk yi fekkee coow la bari lam fa namoon a def muy jaamu yàlla ak jàngale nam ko bëggee woon amewu ko noonu daan bàyyi dëkk boobu noonu la ko defee ba badar gii nga ñëw tey mooy badar gi mu mujjee sanc di badar géey moo ko sancoon bañoon caaxaan lool waaye taxawal fi daaray alxuraan ji mu doon cosaan kon bi mu fi nekkee tamit ba jóge fi nga xam ne moom daanaka euh, moo magoon Serigne Touba ci ci saayir ba mu fi jógee tamit sëñ Omar mi nga xam ni moo ko fi wut woon nekk ci liggéey boobee mooy yar ak jàngale alquranul karim ak jaamu yàlla fii ci dëkk bi Badar ba mu fi jógee tamit Serigne Mor Assa nekk ca yoon woowu rek ci jàngale ak jàng ak yar ak jaamu yàlla ci dëkk bii di Badar fi jógee tamit. ñu bari jaar nañ fi di taxawu loolee te mooy jàngum alxuraan fii ci Badar ba alxaaji sëriñ géey mi nga xam ne mooy sunu waajur daa di ñëwaat Badar daa di taxawalaat daara ji wut fa ñoo xam ne ñooy jàngale alxuraan ji jàngale ba tamit di wéy rek indi fa njabootam gépp ñu fay jàngee alxuraanul karim kon daal Badar moom dëkkub alxuraan la alxaaji Serigne it ba mu nekkee ci loolu ba jóge fi taawam Serigne naa Gueye Badar nga xam ne boo fekk na ko sax mu nekk ci tukki waaye dafa bàyyi lépp daal di wàññeekuwaat ñëw Badar ba mu ñëwaatee it dekkalaat daara ji ñu fay jàng alxuraan di fa yar ay gone daanaka sax dama naan daaray Badar ji bariwul daara ju mel noonu ndax daaray tarbiya la waaye gone yi daanaka kenn du ci dem tool dongo yu mag yi rek ñooy dem tool jàng rek lañuy def ak ñu leen di yar teg leen ci siraatal mustaqim kon loolu mooy cosaanuk badar waaye ñi badar meññ tamit fu ñu mën a dem ak fu ñu mën a nekk alxuraan lañ fay tasaare ndax sëriñ Moustapha Guèye di rakk ci sëriñ Cheikhouna naa ma nga ndakaaru tey boo demee cité Aline Sow yaa ngi ko fa fekk mu daal di fay sos daara ju mag tuddee ko Habibullahi Guèye ñu fay jàng jàngal ay gone alxuraanul karim waaye di leen fa yar ci cité Aline boo demee tamit almadi 2 ca wetu sédiment ba di fa fekk Serigne Saliou Gueye Badar moom tamit di doom ci Badar moom tamit daal di fay sos daara di fa jàng di fa jàngale tamit man mi tamit yàlla xiir ma ci ma nekk xabaan dëkk bu ñu naan Céyeen xiirtal fa gone yi ci alxuraanul karim ndax bi ma ñëwee foo fekk naa alxuraan tumuranke fa lool waaye ma tàmbale di leen waxtaanal ci alxuraan ba ñu bëgg ko lool ba jox ma seeni gone ma daal di koy jël ñii ma yóbbu leen Badar ñu jàngee fa am na ñoo xam Touba lañ demoon am na ñoo xam ne Ngaabu bañ ñëwaatee nag mokkal alxuraanul karim daanaka waa dëkk bi yëpp kenn ku nekk am xemmem teefu jël sa doom yóbbu ko ci daara yi ñu jàngi alxuraan ndax doom yi ñoo tàmbalee wax waajur yi ni leen ñun kat duñu xool suñu moroom yi di mokkal te ñun duñu mokkal ngeen bàyyi ñu rek ñuy bàyyi ko def yëf ma xam ni kat kon loolu suñ ko defee mën naa am gone yëpp dinañ fi jógee te waajur yi duñu am ku leen bayal moo tax ma bëgg leen faa sosal daara foofu ci xàbbaan incha allahu rabbi bu ko defee eh, ñuy jàng alxuraan waaye du leen téye it di dimbali seen waajur yi kon daal su ma la ko tënkalee rek mooy badar moom dëkkub alxuraan la ñi yàlla def ñu sosoo fa it ñoom ñëpp ci alxuraan lañ tënk seeni mbir ndax it fu ñu mën a dem rek jël nañ làmpu islam boobu jaaree ko ci alxuraanu karim fas yéenee ñiital ñooñee ci alxuraanu karim suñuy baay nekkoon ci loolu wala boog suñuy maam nekkoon ci loolu ku mel ni sëriñ Habibullahi Guèye nga xam ne moom lañ daan wax sëriñ Badar Muyib ñu bari xam ko mu nekkoon boroom xam-xam sëriñ Touba daal di koy seereel ni ni ko ku dëddu àdduna la ku ragal yàlla la loolu sëriñ Touba moo ko ko seereeloon nga xam ne sëriñ Touba bi mu soxlaa xaamuus muy dictionnaire yónni woon ay ndaw ci sëriñ Muyib ngir sëriñ Muyib aal ko ko nga xam ne sëriñ Mayib sax dakk kaa mujj jox addiya lettre ba ko sëriñ Tuubaa bindoon ca la ko seedeel loolu daal ni ko sëriñ Mayib mi nga xam ne dafa siiwee ci ragal yàlla waaye ak dëddu àdduna addunaam bépp ci alxuraan la ko def ak jàngal jàngale sunu maam ya tamit foofu lañ tegoon seen tànk ndax sëriñ Omar bi nga xam ni daanaka ku jóge woon ca tund woowu dem ci sëriñ Touba sëriñ Touba daan la dem demal ci demal Badar sëriñ Mayib doy na sëriñ Omar Guèye mii doy na leen tamit nekkoon ci loolee sunuy bàyyi nekkoon ci ñun tamit ñu ñëw nekk ci maanaam judd ci alxuraan ñu nàmpatal la ci alxuraan nga bëgg ko rek nga xam ne yow foo mën a demit alxuraan rek nga fay nga nga fay yóbbu ndax dama naan suñu jëmm yi suñu xoolee leen luñ ciy bëgg rek mooy alxuraanul karim te mooy waxu yàlla ji mu wàccee sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jaaree ko ci jibril kon daal alaaj njëga xam naa ni moom laaj bi mu ngi noonu macha allah sëñ basiiru foofu laa bëgg ñu gën fee dugg ndax nit léeg-léeg cosaanam cosaanam daf koy daf koy daf koy ja da jàngal ci nit ki ni mu mel euh, dafay mel ni noonu nga wax ci sëñ Mayib euh, wax ko ci alaaji sëriñ Gueye wax ko ci mag ñooñu euh, defe naa ni ci wetu sëriñ bi lañ nekkoon ci njàngale alxuraan rek lañ mus a nekk am na ay dëkk yuñ sos wala walla wala no dëkk dëkk bii di Badar rek moom mooy sosukaay bi wala ban taxawaay loolu laa bëgg nga ñëwal ma ci. jërëjëf sëñ Alaaji Njaga seek ah dégg naa lool macha allah laaj bi am na solo lool alhamdulilahi rabbil alamin eh, waaye suñu delloo ci ki nga xam ne moo sos badar dañ ko doon wax sëriñ Habibullahi Guèye mu gën a siiwee ci sëriñ badar mayib wala boog sëriñ mayib Guèye moom xaadar la woon ndax wax naa la ne léegi ni moom ak sëriñ Touba ci saayar wooteeb sëriñ Touba bi sax fekk ko woon jamono mu nekkoon ku ragal yàlla nekkoon tamit ku bañoo ni caaxaan demoon nañ sax ba ni sëriñ Xabibullahi Guèye suñ daan dëbbu sax dugub mu dégg ñu ciy def kandang kandang googu ñuy def mel ni kuy caaxaan sax danaan du ko du ko xéewloo ngir bañ caaxaan dégg naa it waxtu julli su musaan jot daanaka su gis day xool waa dëkk bépp ba xam ñëw nañ ci jumaa ji waaye su gisee kenn manqué ci jullikaay bi rek day laaj lan moo ko téye waaye su ñaaraatee mën na laa génne sax dëkk bi ngir ñàkkoon caaxaan lool <laughs> sëriñ Moussa Sall sax day day faral di wax ni maanaam euh, tàngam moo ko téye moo ko moom jamono moom da da daa taroon daal ci ci ci dafa nekkoon ci dëgg ba pare ñeme dëgg nga xam ne benn buur mosu koo yab moom sëriñ Habibullahi Guèye moom moo sosoon Badar moom nee naa la xaadar la woon waaye nag laata muy génn jamono njabootam gi nga xam ne bàyyi woon nañ leen fi bàyyi woon na leen fi te mooy sëriñ Omar Guèye ak euh, sëriñ Mor Asta Guèye nee na leen woon kiy woote ci penku bi bu wootee bu leen kenn jiitu ci wooteem boobu te kooku mooy Serigne Touba Xaadimu Mustafaa moo tax njaboot gi tamit daal di doxee ndigal bu Serigne Touba feeñee woote wooteem boobu Serigne Omar daal dem jébbalu ji ci Serigne Touba Xaadimul Mustafaa waaye Serigne Omar moomu rek nga xam ne moo fi wutu woon Serigne Mayib gee daa nekkoon borom barke lool waa tund yépp bëgg ko. mu nekkoon tamit moom ku ragal yàlla bëggoon ko lool bëggoon jàng ak jàngale taxawu daara ji képp ku amoon soxla daanaka foofu nga daan ñëw fekk fa doonoon borom barke bu mag moom sëñ Omar moo tax it ba mu demee Serigne Touba jébbalu dañ ko dellul Badar moom tamit ba tey ci Badar googu la nekk sancaatul beneen dëkk ci Badar la nekk nga xam ne ku musaana jógee ci tund woowu sax daal di ñëw Serigne Touba boo jébbalu dana la dellul Badar soo demee Serigne Omar Gueye doy na leen mu nekk fa moom tamit di jàng ak jàngale kon moom tamit sosaatul beneen dëkk. sëriñ Mor Asta mi nga xam ne tamit moo topp ci ginnaawam ñëw yeesalaat liggéey bi nekk Badar gën a taxawalaat daara ji doonoon jàmbaar lool ci liggéeyu jumaa ji bëggoon sëriñ Modou Moustapha lool taxawaloon ko nag ab toolub àllarba bu mag fii ci tund wi léegi nag moom tamit ba mu fi jógee ña ñëwaat ginnaawam tamit ñu bari Badar lañ nekk lu baree bari nag ci diggante boobu xaw naa sooxee ndax ñii dem nañ fu ne ci la nag alxaaji sëriñ Gueye Badar daal di ñëwaat Badar bàyyi lépp lu mu nekkoon nga xam ne sax nee nañ woon dafa yoroon bitig bu mag fee ca Kaolack di jaay waaye daa xëy bis rek daa di day liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ Touba Xaadim Moustapha daal di maye bitig ba keroog sama benn mag nee na ba ko sëriñ Moussa Nawel déggee ba mu ko nuyoo ni ko doomu alaaj sëriñ laa nee na sëñ Moussa Nawel dafa reetaan daan ni ko sëñ alaaj sëriñ da ba muy maye bitig ba la ma fekk waaye ay ree defoon mu daal di ñëw daal di taxawalaat daara ji wut ay jàngalekat maa ngi ci profité sax di di nuyu sëriñ Abdou Lahad Cissé bokkoon na ci jàngalekat yi nga xam ne wutoon na leen fa ngir ñuy jàngal gone ya ñu baree baree bari fa lañ jàngee ci loxoom moom moomee sëñ sëñ Abdou Lahad Cissé kon nga gis ni kon ñoom ñëpp kenn sosu ci baatub dëkk waaye foofu lañ dekkalaat rek daal di fay nekk ngir alquran alxaaji sëriñ nag bëggoon lool badar xam naa loolu moom sëñ alaaji njëga xam nga ci dara comme li nga wax sànq xam ni daan na ñëw ngaay bëggoon tund wa lool nga xam ne danaan ñëw tund ba sax waa tund wépp daal di àndandoo ñëw naan ko tey dañoo marar ak lu ne lañ ko daan wax ndeysaan mu amoon ijaaba lool nag mënoon ñaan waaw bëggoon sëriñ Tuubaa lool te ko fu kawe waaye bëggoon alxuraan nag bëggoon mu dekki jamono ju nekk muy wut jàngalekat ngir alxuraan ji gën a mën a taxaw foofu kon moom tamit sosul benn dëkk waaye foofu la dekkalaat badar àndoon ak liggéey bi nag magam ju baax jooju muy sëriñ Mortala Guèye badar maa ngi profité waale di nuyu sëriñ Moustapha Guèye mi nga xam ne mooy taawub sëriñ mortaala Guèye ak sëriñ Xaadim Guèye chef de village badar noonu tamit la sëriñ Seexuna bi nga xamee ni waajuram wa jóge na fi alxaaji sëriñ géey moom sëriñ Seexuna badar moom tamit daal di bàyyi lépp li nga xam ne nekkoon na moom it sosaatul beneen dëkk daa ñëwaat badar googu nga xam ne moom la ko bàyyi bàyyiloon mu daal ñëwaat ci ndonoog baayam taxawalaat daara ji wut ay jàngalekat ñu baree baree bari mokkal fa Habib Diop mi may dugal faral di dugal muy xale bu mën alxuraan fa la ko jàngee mokkalee ko fa ci loxob Serigne naa moom boo ñëwee ci dikk daara ji nga koy fekk mu toog di jàng ak a jàngale. kon daal sëñ Njaga amul benn dëkk boo xam ne sosaat nañ ko ñëpp ci badar lañ ñëw fa lañ def li ñuy def fa lañ dekkalaat cosaan li nga xam ne mooy jàng ak jàngale sëriñ si wax naa moom li ma la wax sànq rek mooy daara ja sax amul dem fenn di yalwaan waaye amul sàkku ndimbal fenn lépp moo ko yoral boppam di ci liggéeyal yàlla waaye nag di ci jaamu yàlla kon daal sëñ alaaji da gis ni daal ñoom ñëpp kon kenn sos si dëkk li ko tàmbalee ci sëriñ Mayib daal moo sosoon dëkk ba waaye sëñ Omar fa la nekk sëriñ Mor sa fa la nekk alxaaji sëriñ Gueye fa la nekk sëriñ Mor Talla Gueye Badar fa la nekk ñoom ñëpp fa lañ nekk boo gisee sax maanaam euh, sëriñ ba mi nga xam ne moom tamit badar la soqee ko moom moo nekkoon jumaay jurbel ji daanaka moo ko yoroon moo ko doon saytu si maa ngi profité tamit di nuyu doomam sëriñ Cheikh mi nga xam ni moom daanaka mooy xalifa badar ak euh, sëriñ Omar Gueye ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu baax a baax kon daal sëriñ Alaaji Njaga Seck laaj baa ngi noonu ñoom ñëpp daal kenn sosaatu ci ab dëkk waaye badar rek lañ ñëw di ko dekkal jamono ju nekk macha allah waa sëñ Basir euh, foofu am na solo waaye dëkk bi nag bëggan naa xam itam lu fi alxuraan def parce que euh, xam naa moom euh, sëñ sëñ sëñ alaaji sëriñ Gueye sax xëy na yow doo miin lu bari ci moom waaye nag mën nga maa wax ci dëkk bi ci wàllu baatin parce que alxuraan itam sabaarub sabaarub dugub la foo ko wàcce buy booy yëkkati mu fay ruus ci wàllu baatin ci badar gii lan la fi alxuraan wàcce ba yegsi ci sa wayjur wu tedd wi nga xam ni dama koo xamoon bu baax alaaji sëriñ géey daay mu sedd yàlla na yàlla yee yeesali yërmandeem euh, ca baatin ba ca wilaaya wa ca taxawaay ba ca ñaan ga ci saase mu am defe naa alxuraan noonu lay def nit maanaam boo boo boo bëggee am ijaaba li ñuy wax ijaaba sa euh, alaaji sëriñ Gueye moom ku bari yoonu ijaaba la ma bëggoon a ñëw ci magu badar yëpp kenn ku ci ne nan nga meloon ndax alaaji sëriñ géey la ñu meloon ci alxuraan ak wilaaya wow ko yàlla joxoon macha allah a seek euh, kontaan naa ci lool ndax tamit alxuraan fu mu nekk faaw dafay bàyyi ay jeexintal ndax yàlla moo ko bindee noonu ci lu mu nekk bokkut ak lu mu nekkul moom alxuraan ndax damay faral di wax ni yàllaa ko wàccee jaareele ko ci jibril jibril gën ci malaaka yépp mu wàcce ko ci weeru koor mu gën ci weer yépp mu wàcce ko ci leylatu xadri mu gën weer mu gën junniy weer mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu gën ci yonent yépp waaye mu wàcc xeetu sayyidina Muhammad ñu gën ci xeet yépp kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas tey suñu jëlee magi badar yooyu tàmbalee ci nga xam ne moo ko sosoon segam dafa joxoon léppam alquranul karim kon nag faawu alquran am lu mu ko jox mu nekkoon borom baatin lool moom sëriñ Habibullahi Guèye lu baree baree baree bari ñu nettali ko ci baatinam boo xam ne amoon na ko te li ko def ci moom du leen lu dul alquranul karim ndax istastagiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati mordifin wa ma jaalahu llahu illa bushra wa li tatma inna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indillah keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gisee mbooloo ma mbooloom yéefar ya bari lool ca xare badar lan la def dafa ñaan sunu boroom ca saasa rek ijaaba daal di am istastaxiisuuna rabbakum fastajaaba lakum kon tamit ku nekkaat ci woote woowu te mooy teg nit ñi ci siraatal mustaqim kennal sunu boroom di ko jaamu waaye nag di yar ay gone di leen jàngal alquraanu karim tey sellal te lépp doon dëgg ci yow kon fastajaaba gi mën naa ñëw ba tey kon mën nga am ijaaba jooju moo tax waa Badar mag ña fa musa jaar ñëpp séeréel nañ leen ak ijaaba wax nga léegi alxaaji Serigne Gueye mi nga xam ne yow moom nga ci miin li nga xamoon ci moom ci wàllum ijaaba waaye Serigne Habibullahi Gueye moom tamit li ñu nettali ci moom ci wàllum ñaan gu nangu kenn xamut nu mu toll bokk na ca li ma la waxoon sànq mooy benn buur mosu koo yab ci àdduna benn buur da nga daan yàq dëkk yëpp mën nga fa daa comme buur ni mu daan def rek nga xam ne day ñëw dal fenn ni yow tey yaa may jox may lekk jox may may naan ba keroog ma fi jóge sëriñ Habibullahi Guèye buur musta jaar Badar di fa yàq waaw buur musta jaar Badar di fa yàq ngir yoroon na ay bagaasam yoo xam ni ndeysaan dégg naa sax am na sàcc bu fa mos ñëw boo xam ni ab dag la ba mu ñëwee daal di waru waroon fasu sëñ may bëgg a dem ak moom waaye fas wi jógewul fi taxaw te bu wàccee fas wi di dox nga xam dafa faa mujj bàyyi yooyu nag liñ ci nettali ci moom moom du jeex tey suñ ñëwee ci sëñ Omar moom doy na rek ci ijaabaam ju mu amoon mooy dañu woon peste man lay mujjee dal ci réew mi ndax moom jamonoy peste ba ca la demaale mu ni moom lay mujjee dal suñ ko sangee suul ko ba dar insha allahu rabbi kenn dootul déggati pest ba mu fi jugee la fi peste bi jugee kon kooku tamit ijaam ijaaba jooju moom mën nañ koo mën mën mën nañ koo euh, jaaree noonu xamale ko ci lépp ci barkeb alquran ak taxawal gi ñu taxawal alquranul karim alxaaji sëriñ Gueye Badar moom su ma ñëwee ci ijaabam xam naa ne dañ fiy fanaan ndax li nga wax sànq bariwul lu ma ci fekkee waaye tamit am na lu ma ci fekkee lu bare baree bari ndax nee naa la tund woowu saa yu nawet daan jot dañ daan maral wallahi yu ci bari man fekke naa ko suñu maral dañ daan ñëw ci moom am na bis boo xam ne dañoo ñëw jàmbat ba pare mu daal di ñëw ndeysaan daan ni daan sëriñ Mortala fatu leen keroog daa taw ba néegi wale ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci wàllum faj moom li ko ci yàlla joxoon daan na wax sax yoo xam ni dafa yéeme lool ci wàllum faj li ko ci yàlla mayoon nga xam ni nit lu ko musa tawat ji daan metti metti nu mu mën a toll su ñëwee danaan fotoog moom rek su génnee danaan cocc loolu nag ñu ci baree bari mën nañ koo seede daanaka xam naa ni moom su ku dégg lii may wax danga mën a ñëw taxaw daal di seede ci moom loo xam ne yow yaa ko fekkeel sa bopp moom alxaaji Serigne Gueye muy ijaaba ji nga xam ne waa Badar am nañ ko te leen ko may mooy alquranul karim te képp ku dund ak alxaaji sëriñ xam nga loolee ndax moom ba mu fi jógee yàggul 2007 bii la fi jógee amoon ijaaba lool waaye tamit bëggoon Serigne lool jàppale Serigne Touba ci liggéey bi waaye nag jaaree ko ci alquranul karim daana faral di wax ni man moom alxaaji Serigne foowu ma foowul foolu man moom daawul foo daawul foolu ku mu mën a doon soo musaana ñëw ci moom bu waxee ak yow ba noppi boo génnee doo wax ak kenn doo geesu sax ndax dëgg jim la daan wax doonoon ku mën a ñaan nag doonoon ko am ijaaba kon daal sëñ alaaji ngir rek bañ a xuus ca loolee badar moom ñi fa mus a jaar ñépp ci barkeb alquranul karim ay boroomi ijaaba yu mag lañ tàmbalee ko sëriñ Habibullahi Guèye ku amoon ijaaba la ku mënoon a ñaan la ku ko nangule la te la mu sa wax nga teg ci bët Serigne Omar tamit ku borom ku borom barke la woon ku mënoon a ñaan la sànq maa ngi lay wax la mu jëfoon ca pest ba Serigne Mor Assane noonu alxaaji Serigne Gueye noonu Serigne Mor Talla noonu kenn koo ci jël daal ku amuk ijaaba la kon daal sooy laaj ban meññeef la alxuraan def badar mooy ijaaba ji leen yàlla may ci wàllum ñaan nga xamante ni Serigne naa Gueye badar mais soo demee ba fekk ko fa. ñu ba sëñ bi sax danaan dem ba naan wax naan badar moom suufuk badar rek suufuk badar maanaam mën naa saafara lu ne suufuk badar nga xam ne am na nit ñoo xam ne dañuy jógee feneen ñëw ba biir badar ñëw ci suuf si rek ñaan ngir barke ba te barke boobu lépp li ko fa suuxat mooy alquranul karim kon daal alaaj njega sekk laaj baa ngi noonu macha allah jërëjëf euh, sëñ Basirou Gueye Badar jërëjëf itam ñu ñu àndalan fii ci Badar tabarakallah yàlla na yàlla dolli ndam ñu àndal nag sëñ Basirou Gueye alquran borom nafar yàlla <laughs> na yàlla dolli la ndam ba subaak jàmm ñu tàmbaliwaat foofu incha waxtaane badar ak alxuraan ak yitte ji nga créé léegi muy dem ci marché yi bëkk dem rek nga dem ba podoor dem fépp xam naa sama waaja moom maa ngi ko ci ziyaare mu yónnee le kaamil yu bari ak zam-zam yu bari ni la maa la ko accompagner ñoo ngi koy siyaar baax njaay yàlla na yàlla dolli ndam euh, ba suba ak jàmm aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa wa barika ala sayyidil awalina wa saydil axirin allazi lam yoqlaaq mislahu bika lam yabdu misal musawa bokk yi tedd yi ginaaw bu nu santatee yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaaraat tey baal àq ñëpp di leen baalu di wax ni rek noo ngi àndaat ak yéen suñu émission bii ñu tuddee ganu lislaam ki leen koy defal seen xarit xaaj njaga sekk di ko ànd ak ay ganam xam naa bala ñuy sori ñaan yi ñu doon ñaanal néew yi tëdd ci bàmmeel yi ñu ngi ñaan yàlla yóbbul nu leen ca jannatul firdaws ci daraja yi sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam bokk yi ñu ñaanal néew yi eh, defal leen ñetti xul huwa laa wax benn ba naan rek bismillahi rahmaani rahim ñu def ko te dellu siwaat incha allahu taala waaw kay di ñaanal ñi nekk hôpital te feebar ñi ne ci cellule prison yi ñu dox te am naqaru xol yàlla na yàlla woyofal xam naa di jéggulu rek ci timing bi nga xam ne bu ma nee nan ñaan rek damay dellu siwaat waaw nga temps rajo dafa nanguwul noppi dama koy wax rek pour yéen ñiy déglu ngeen man koo def macha allah euh, di ñaanal alaaji Ali Maritalia waaye di ñaanal nag sëñ Lam Touré si mu seex alaaji Abdoul Aziz nga xam ni jamono yu ne ma ngi déglu tabaarakal ak mbooleem ñiy déglu euh, su ko defee maa ngi waat ba Badar ñu àndandoo waat ak sëriñ Basirou Guèye moom alaaji sëriñ Guèye raay mu sedd nga xam ni wilaaya waak baatin wi ni ko waxee démb garaaw na am na solo lool boo gisee ma dugg ci baatin sax dee ko waxtaane waaye dafa toll ni jii jamono man man man ñu baax ñooñu dama leen a gisatul fenn fenn fenn te kat alxuraan leen daan may loolu moo leen daan may wilaaya woowu euh, léegi gis nga eh, tiktok yeeg internet yeeg foo wëlbatiku yaa ngi gis gaa yi lal xaatim yi géeg gi nga xam ne dañ daan ñaanlu di ji pétaawlu ji ñoom itam dooni sëriñ maanaam Sénégal damaa dem ba yàgg ma ni waaw lii moom ba jàmm la <laughs> nit ñi daal nit ñi daal fu ne nii ñëpp doon nañuy ñaankat ñii doon ay jaaykati sunguf te mu dangereux loolu manaan nañ moytu sunguf yi ñuy jaay ci TikTok yi parce que en général sunguf yi joxe insuffisance rénale la parce que nit ki du xam am na sunguf yi dangereux yoo xam ne boo ko jëlee mu indi la problème mu yaram beneen bi ci des itam mooy euh, xaatim bu damm yooyu yëpp mag ñi dañ koo dañ koo bàyyi woon xel damay ñëwaat rek ci badar euh, taxawaay bi nga ma wax démb te mu am solo lool foofu laa bëgg ñu dooree waat fa doog ñëw nag yow ci liggéey bi ngay liggéey parce que dama bëgg euh, lal taay li buñ ko lalee dinañ xam ni kii kat nii nii nii mu mel nii la war a mën a mel ndeysaan na la oustaz Pape Hann daan wax naa inna atharana tadullu alayna waaw ni nga mel noonu nga war a mën a mel waaw parce que lee ak lee moo tax euh, yaa yaa Cheikh euh, damay dellu si ci laaj bi rek mooy euh, wilaaya wi nga ma wax ak baatin baak nangam nangam lu tax sunu mag ñooña ak léegi lan moo lan fan la affaire bi doge ba ñun amatuñu ijaab ak ñaan léegi léegi léegi mu am léegi léegi léegi léegi lan la lan moo xew macha allah sëñ Njaga Seck alhamdulilah waaw comme ni nga ko waxee noonu rek mooy daal euh, baatin lu naqaree waxtaanee la ndax dafa nëbbu lool waaye comme ni nga ko waxee rek alxaaji sëriñ moom ñu baree bari xamoon nañ ko te it baatin bi jege woon na ko lool te it daan na ci def di ci dindi ci coobaree sunu borom nga xam ni képp ku musa jotaayoo ak moom jariñ na la bis moom ku mu mën a doon te daawul bind jox la daawul def dara di la nangam danaa la nangam ak nangam mooy am te nam ko waxee noonu la xewee ci kàttanu sunu borom. laaj bi nga laaj nag daal ni lan moo tax baatin yooyu wala ijaaba yooyu amatut foofu dama naan la aha kay mi ngi am ba tey ndax amul genn may goo xam ne yàlla maye na ko doomu aadama di ko tënk ci ab jamono waaw yàlla du tënk ci jamono maanaam lii dama koo maye ci jamono ji waaye damay dem ba ci jamono ma dindiwaat ko déedéet waaye nag képp ku jaaraat fa ñu jaaroon ndax yéene ya yéene yi ñu am léegi ak ñoom yéene ya ñu amoon benn la am déet ñoom lañ doon def dañ caa dëgg woon te mu luy wér ci ñoom ndax tey bu ñu jëlee rek benn aaya ci suratu tawba baada aoudu billahi min alsheytaani rajim yàlla dafa wax ni wasaabiquuna al awaluuna min almuhaajirina wal ansaar walladina tabaauhum bi ixsaanin radiallahu anhum nga xam ni topp leen nag ci rafetal googu ñu doon def nag moo xaw a jafe tey boo demee suratu mariam ulaayika alladina anama allahu min annabiyina min durriyati aadama wa min man naa ma nuuxin wa min durriyati ibrahima wa israila wa min man hadaynaa wajtabaynaa loolu nag lu vague la lu yaatu la wa min man hadaynaa wajtabaynaa nga xam ne yàllaa leen tànn loolu nag ku toppaat ca yoon woowu dox ca tamuy lu wér ci yow lañ amoon danga ko am ndax yàlla li ma la wax rek sànq mooy yàlla amul genn may goo xam danaan dama koy mayee ci période bi demaat ba ci yàgg ma téye ko demaat ba ci yàgg ma mayewaat ko déedéet képp ku tegu ca yoon wañ tegu woon rek lañ amoon danga ko danga koy am waaye léegi nag yéene yi ñoo sellatut folklore gi bari na bari na yegg yeggulu gi te yegguñ da ngay gis koo xam ne départ sax di wane ni yegg na te ñoom dañoo yeggoon rëkk doo koy yëg ni yegg na nga xam da nga ciy gis ku yegg sax te doo xam ni yegg na ndax alxaaji sëriñ Ngéy mi damaa musa laaj kum daan àndal kuñ naan sëriñ daamloo ni ko lan moo la gën a touché loo xam ne dund nga ko alxaaji sëriñ ba tey mi ngi des sam mu ne ma loolu dafa bari waaye naa la ci wax ñaar benn bi mooy tuubaa dafa am fu ñu daan dem benn kër goo xam ne suñ fa musaan a dem da daan am ku génnee ci kër gi di ko gàttalu waaye su ñëwee bay bay akolaat alxaaji sëriñ danaan ko ay waaye ndaw ay waaye ndaw daa di koy longu ànd ak moom ci biir daam loo nee na bi ma gisee alxaaji sëriñ Gueye Badar mii di def ak góor googu loolu ñaari yoon ma daan ni ko waa alxaaji man kat damaa gis ngay def nangam ak nangam kii saa yoo ñëwee damay gis mu ni la ay waaye ndaw longu la ngeen ànd dem ci biir mun la gis nga kii ni nga koy gisee ak ni mu xeeboo nii ni nga koy gisee nii ak ni mu melee ni ku doyee di ci bëti nit ñi lépp luy xew jamono moom xam na ko lépp loo xam ne day xew jamono jëmm ji ngay gis xam na waaye mënu cee def mënu cee dindi ñun ñi nga xam ne nag yàlla dañoo may lu xew jamono ñu man koo xam ba pare mën caa def mën caa dindi ci kàttanu yàlla loolu la ñu ñeewee <laughs> macha allah kon nga gis ni danga daan gis koo xam ne sax day yegg rëkk ca sunu borom te boo ko gisee rek dangay ngay jàpp ni sax da koy yéene ab sarax kon yàlla ji doon moo fi nekk ba tey mooy maye yàlla tamit nee lépp lu ma yor ay magasin laa ci yor du jeex yàlla moomu tamit nee na képp koo xam ni hal jazaa'ul ihsaan illa al képp koo xam ne rafetal nga te muy dëgg ci yow te li ngay def ànnut ak ngistal àndut ak daray folkoloori àdduna man yàlla sunu boroom la ma doon may gaay rek laa lay may yàlla nag bala laa may dana la tegi nattu ndax sanq rek maa ngi lay wax dara ci alxaaji sëriñ Géey mi sëriñ ma yëpp bu ma ca tàmbalee mooy nattu bi mu amoon mooy fu mu mës a sanc ku ko fa fekk mu fas yéene bàyyi la fa gën a ñoqali dem feneen sanc gisoo sax badar fa mu ko fa ko sos badar gi mujjee sos fa mu ko fa sos daa sori lool ci biir réew mi foofu li ma la fa bëgg a wax mooy yàlla faw dalay nattu mu jaral la mu doog lay may kon nattu bi mu ko nattoo mooy fu mu mus a sanc rek ku ko fa fekk bu la déggee ay caaxaan bàyyi la fa ngir yàlla dem sa dem feneen benn ngoog ñaareel bi sëriñ Omar mi nga xam ne moo ko wuutu moom tamit nattu bi mu amoon mooy pes bi da koo dal mu daal di fas yéenee àngu tawat jëpp ngir faatu ngir pes bi daal di jeex ci senegal noonu la amee alxaaji sëriñ Gueye mii ñu mujjee tudd tamit li ma la wax lu leer la bidigam la yoroon yor commerce am gu mag fee ca Kaolack xëy bis daan ne yàlla damay liggéeyal Serigne Touba daal di fay bàyyi bitig ba daal di ñëw badar fa yéenee jaamu yàlla ak taxawal daara ji kon gis nga yàlla nee na dama lay nattu ci sa alal dama lay nattu ci li nga bëgg dama lay nattu ci sa noon yër ñu tiital la loolu yëpp dama la ciy nattu waaye nag képp ku muñ nag danga nga muñ kon mbokk yi sëñ alaaji bokk da ngay xam ni kon faaw yàlla dalay nattu nga dëggal te dox ca loole la mu doon mayee ba tey mu la koy may léegi nag ñun lu ci baree baree bari ay folklore la lu ci baree baree baree bari lay dëggi dëggi mbir ma sax dañoo dem ba réere ko waaye yàlla képp ku tegu ca yoon wa la mu doon maye pare na pour may la ko waaye nag faw dangay ngay dékku nattu yi ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wala xad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibin bu kenn jàpp ni li ma yor di nga ci am dara lu dul dama laa nattu nattu yi foofu la yonent yi jaar nga xam ne bul demee ci saar bi dana la wax yonent yëpp fa ma jaar ak ñoom yonent yàlla noox lii laa ko nattoo woon may ko lii waaye mu dëgg ca mu dëgër ca lam nekkoon rek muy dëgg ci moom ma may ko lii yonent yàlla nangam noonu laa ko def Serigne Touba Xaadim Mustafaa rek ñun doy nañu sëkk misaal gis nga ba mu tegoon yàlla ak fa yàlla la natt yoo ko teg yàlla teg ba mu la ko yàlla may kon daal képp koo xam ni yoon wa yaa ngi ca teg sa tànk jàng alxuraan ak jàngale muy dëgg ci yow natt yoo yàlla teg koy muñ muy ñàkk wala boog ñàkk loo bëgg nangam ak nangam lépp ngir yàlla wallahi ijaaba jooju yàlla doon jox gaa yu njëkk ya dana la ko jox ba tey waaye nag sellal ga moo des kon alaaj njaga jàpp naa ni laaj bi mu ngi noonu incha allah boo gisee ma laaj-laaj boobu <laughs> wax nga dëgg nag eh, démb li nga wax rek moo ci am solo mooy laaj Serigne géey dinaa la ci jox benn seede boo xamee ni dama toog ci sama barabu benn xarit xam nga man mag ñooñu dama leen di waxtaane eh, damay waxtaane alaaj Serigne géey raay mu sedd na mu meloon di waxtaane sëñ Mor Faasa Baaxum nga xam ni borom léppay baax bu la ne léppay baax booloo booy boo dem eh, sëñ sëñ Mbàkke kan <laughs> bàyyi sëñ Xaadim kan nga xam ni njaboot sëñ Tuubaa gisat ñëpp dan tëb di di dem ci moom loolu yëpp baaxub sëriñ bee eh, di waxtaane borom daaru kanji di waxtaane waa Ngajaga di waxtaane waa Ndombil <laughs> wa Ndeer Naar ak Kër Saa Xayta ak ak ak ak eh, ca Mouhamad Jullit Kunta waaw nga xam ni foofa góor ga fa nekk tabaarakallaahu ndeer euh, beneen affaire la waaw ndàng gu yet dëkk yooyu nga xam ni sanc buuna euh, mag ñi dañ faa bàyyi woon ay yiw ay yiiw ay yiiw yu yéeme waaw ba ci ndukkure gii nga xam ne moo nekk ci boori ngaay waaw di di boroom yi baax ma ma am seede soo xam ne sama wóllëre woowu pambaw dañu toog di waxtaan ba tudd sëñ euh, alaaji sëriñ Gueye mu ni ma man day am naa tawati biir joo xam ni xawoon na maa yóbbu yomal xiyam samay waajur ñàkkan nañ ci xalaat waaye kere bi mu ci tegee loxo bi altinay ngaay bisub kere bu fi may wax ak yow laa gëj gis tawat bi euh, sëriñ may laaj maanaam folklore niñ ko folkloriser léegi xam-xam ak nag fan la des ci ci ci ci ci ci ci badar gi euh, maanaam kan moo fi yor <laughs> baatin boobu wala damay seeti sëñ Saliou géey rek wala damay yem ci yow yow moom da ngaa dog sa yoonu bopp fi ne nii jëm ci fexe taxawal alxuraan baatin boobu ijaaba jooju ndax ndaw ñi am nañ ko waa kër mbooleem koo xam ne rek bokk nga ci waa kër sëñ Mayib bëgg naa xam itam ndax sëñ Mayib moom moom mooy mi doon jàngal xasida yi ci wetu sëñ bi wala du moom parce que am na ñun mën nañ ko dégg jàpp ni moom la euh, yaa Cheikh. macha allah sëñ Alhaaji Jaga <laughs> daa mel ni moom euh, dëkk yooyu moom miin nga leen lool macha allah comme ni nga ko waxee rek dëkk yooyu moom foo ci dem rek da nga fa fekk liggéeyu mag ña des fa ba tey te du fa jógee it ba yomal xiyam incha allahu rabbi macha allah ah waaw li nga laaj doon de moom xam naa ne lu yéeme yéeme yéeme la waaye daal xamal ni séntu ko ci ñëpp rek séntu ko ci ñëpp ndax daal xam naa ni ñoom ñëpp rek ñu ngi dox ci fa xalafa min baadim xalfun warisul kitaaba waaw te loolu nag amul lenn ke amul lenn luñ mën a ñàkk ci àdduna eh, te it kenn ku ci nekk daal gis naa ni ku tënku nga te la nga war a nekk yaa ngi ca war a nekk yaa ngi ca nekk te mission bi nga xam ne moom lañ ñu bàyyeeloon te mooy alxuraanul karim tasaaroo ci Sénégal nit ñi di ko jàng kenn ku ne yaa ngi cay bayi sawaar na nga cay bayee sawaar nee naa la sëriñ si Yaxna Gey boo demee Badar fekk ko fa muy sunu xalifa ñun ñëpp nekk ci alxuraanul karim soo demee fekk ci digg daara ji mu toog ndeysaan bàyyi lépp ginnaaw damaa mos a toog benn mag sax mu daan ni sëriñ si Yaxna daa bàyyi teraangaam ndax boobu ngi woon Italie nekk fa ci xéewal maanaam liñ naan xéewalu àdduna mi ngi ci di amu koom waaye bi fi waajuram jógee alxaaji sëriñ Gey Badar dafa bàyyi lépp daal di ñëw Badar toog fi moo tax mag ma daal ni sëriñ Seexu naa daa bàyyi teraangaam ñëw fii toog badar ma ni ko déedéet badaray teraangaam waaw moom tamit boo ñëwee badar fekk fa mu fay liggéey liggéey bu am solo ci alxuraanul karim tey sëriñ mu Moustapha mi nga xam ne mooy rakkam boo ñëwee ndakaaru boo demee cité Aline saw boo fa ñëwee rek danga koy naw ndax dangay ñëw fekkoo mu taxawal fa daara ju mag joo xam ne tey ñaata xale ñoo mokkal alxuraan jaaree ci loxoom boobu waaye yemu ca xale yu baree baree bari ma ngi leen di yar teg leen ci aw yoon ku dem tey Sidi Alioune Sow da nga ko fa fekk noonu tamit la seen rakk Serigne Saliou Gueye ba Serigne Saliou Gueye Badar sosee daaraam moom tamit fële ca euh, almadi ca sédiment ba moom tamit di fa jàngal gone yi karim ba ñu mokkal waaye tamit di leen fa yar kon nag kon xam nga kon kenn ku ci nekk yaa ngi ci li nga war a nekk kon alhamdulilahi rabbil alamin ndax buñ nekkoon ca leneen rek bàyyi nañ lañ la leen fi seeni maam bàyyi lool te mooy alquranul karim waaw kon daal mën ngaa jàppandi rek sëñ Alaaji ni kenn koo ci fëgg rek man mën nga cee fekk daal loo xam ne dana la yëm lool incha allahu rabbi ndax koo ci toogal bu soobee yàlla da nga ngir yàlla ak alquran ndax ñun waa Badar amuñu dara bu dee koom àdduna du luñ sàkku ci àdduna sëriñ Moustapha mii ma la wax di doom ci alxaaji sëriñ Gueye Badar diplôme yu baree baree bari am na ko yoo xam ne mënoon na koo may mu liggéey comme ni ko ay moroomam defee ndax jàngi woon na ba jàngi Maroc waaye ba mu ñëwee dafa xam lan mooy cëram muy alquraanu karim mu dellu ca kon dama naan ñun waa Badar amuñu dara lu dul alquraanu karim alquraan képp lañ am tey dama naan bu ñu génne woon alquraan ci ñun daanaka dañuy seetaan ñi rek ñuy lëfër lëfër yi daanaka kon lu ñu mel tey alquraan moo ñu ko def waaye nag delloo nañ ko njukkal te xam naan duñ ko mos a dab moom waaye kenn ku ci nekk fa nga nekk daal yaa nga fay góorgóorlu. bëgg faa taxawal alquran bëgg faa wooteel yàlla teyit ku la fa fekk naw la kon loolu jàpp naa ne lu am solo la kon daal boo bëggee laaj mbir mi fu mu nekk moom xam naa dañ lay yebal ci sëriñ si wax naa gee badal rek soo demee moom ba tooga moom bu soobee yàlla incha allahu rabbi lépp loo maroon ci xam badar lépp loo maroon ci bëgg xam boo ñëwee fii ci badar fekk fi sëriñ si wax naa ak toogaayam bu jekk bi wallahi da nga bég lool di nga xam ni ñii ñi ngi ci li war a nekk mooy alquranul karim alquran ku ko lebal ker mu fay la guddi guddi googu nag mooy fay gii rek mooy cofeel gi ñuy am ci alxuraan di gën a bëgg a taxawal alxuraan ndax amuñu geneen pay gum ñu mën a jox ci àdduna gu weesu ñuy gën a taxawal alxuraanu karim ndax dama naan dañ cee nekk te buñ ñuy fay nañ ñu ci fayaat <laughs> waaw nekk ci alxuraanu karim te buñ ñuy fay nañ ñu fayaat ci alxuraanu karim man coono ju ma mën a am ci alxuraanul karim su ma sañoon bu ma yàlla di di fayit na ma fayaat ci alxuraanul karim waaye du ay koomi àdduna yoo ciy séentu du ay xemmemteefi àdduna yoo ciy séentu ndax doy na ci àdduna rek ndax da dafa am dafa am mag mu baax moo xam ni comme aaya bi nga xam ne yàlla danaan wala tan sa nasibaka mina dunya bul fàtte sa wàll ci àdduna wala bokk bul fàtte àdduna rek ci la bokk ñoom dañ naan doy nañu sëkk ci àdduna ñuy jaamu sunu borom di ko sellal waaye man moom doy na ma sëkk ci àdduna fu ma nit xoolee rek daan ni sëñ Basiiru borom boroom alxuraan bi xam nga loolu sëñ bi loolu gisuma lu ko gën a kawe xool rek daan ni sëñ Basiiru alxuraan wala mu xool la rek xelam dem ci alxuraanul karim noonu la ko nag gaa yi badar yépp koo ci gis boo ñëwee ba fekk ko fi mu nekk incha allah rabbi li ngay njëkk waxtaan ak moom mooy alxuraanul karim loolu est ce que am na lu ko gën a kawe gisuma lu ko gën a kawe kon nag alxuraan jooju ñu nekk nag def na ci ñoom i mbir nag waaw waaye nag ñoom kenn du ci taxaw nag naan maay def nangam wala maay kii nangam ndax doo ci gis kenn muy bind ak maas yi joxe jenn muy boole ay nangam ak nangam ak nangam ak nangam koo ci wax daal danaa la yàlla baax na wala mun la dinaa la ñaanal ci barkeb alxuraanul karim waaw kon daal doy nañu sëkk ci alquranul karim li ñu jëfal alquran yàlla fayewaat ñu alquranul karim soxlawuñ dara ci àdduna lu dul ku ñu gis sa xel dem ci alquranul karim alaaj njega seek daal moom mbir maa ngi noonu yow nag moom xam naa ni moom borom mbir nga borom baatin nga <laughs> xam naa ni daal boo ko làmbatoo rek mën naa am di nga ko daj waaye xam naa ni moom bo di nga ni benn ngi nii ak beneen ak beneen ak beneen ak beneen ndax daal jàpp naa ni koo ci jàpp di nga ko fekk mu doon koo xamante ni ku tënku la même ci Serigne Cheikh Fallou Gueye Badar maa ngi profité moom tamit di ko nuyu muy koo xam ne jàmbaar la lool di doom ci alxaaji Serigne géey doon ku baax ku bëgg lu baax moom tamit jamono ju nekk mu ñuy génn a sonn ci liggéey bi alhamdulilahi rabbil alamin euh, njabootu sëñ Mor tamit noonu lañ mel ci alquranul karim moom daal Badar yaatu na euh, boo ñëwee Jurbel fekk fa njabootu tay ba tamit ñoom tamit ña nga ca loola rek kenn génn ci alquranul karim daal alhamdulilahi rabbil alamin kon daal sëñ alaaj Njaga seek tontu laaj bi moom jàpp naa ne mi ngi noonu yow daal yaa koy làmb rek waaw làmbul xam naa nag da ngay kii rek waaye yow moom loolu mën nga koo xam wala boog <laughs> macha allah <laughs> sëriñ bi loolu de war ngeen cee dimbali nit ñi ba xam eh, nan la ma ne dama bëgg a ñëw nag ci alxuraan alxuraan eh, bàyyi gi ko mag ñi bàyyi ci seeni loxo tey ngeen war ngeen ngeen taxaw ko yéen yor ko di ko doxal ñu ñu ñu ñu war cee yëg ñu war cee yëg mais dafa mel ni léegi comme li ma la waxoon ci commencement ba dañ koy foye nit ñi dañ koy foye euh, nga wax ni yàlla moom dégg nga ko euh, fowul foluwul tey nag ma gis ni am na beneen système bu gars yi di doxale mais di am xaalis di am ay oto di am ay bien gars yi sonn ci alxuraan na nga xam ne yow mii fu ne ngay dem ci àdduna bi loolu dinaa ci ñëw sax ci suñu ñetteele euh, émission ndax loolu ci laa bëgg a dugg ndax dëkk yi nga jaar ak yëpp war nañ koo xam ak lan ngay liggéey bi yooyu dinañ ci ñëw incha allah suba euh, mais mais mais ma ma bëggoon xam foye gi gars yi di foye alxuraan dama ni ndax alku daa amatul wala déet alku te dama daan gis yàlla doon wax ni waxuma la foye alxuraan gi waxuma la di ko jël di ko def ci ay tiktok bind xaatim bind nangam bind saari alxuraan taxaw fee nangam boo ko rombee da ngay am problème ay gars yi taxaw fële Eh, man yàlla ma dimbalil boppam nangam nangam te ma gisoon ni yàlla moom dañu wan sax boo jàppul selloo rek waxuma la jàng ko de waroo koo jege ndax dalay alak tey loolu ndax daa amatul sëriñ bi macha allah alxaaji njaga yal na la yàlla sàmm te aar bu baax a baax alhamdulilah jërëjëf ci laaj boobu alxuraanul karim moom comme niñ ko xamee mooy kéemtaanu yenent bi sallallahu alayhi wa li tax nag mu gën a yéeme ci kéemtaan yi fi jaar yëpp mooy moom mujiza la waaye xaalida la mooy dafiy des ba faw ndax ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam karaama wala boog mujiza bi la yàlla joxoon ba nga fi jógee daanaka dafa ànd ak yow dem ndax doo waxati yetu Moussa baa ngi nii la lu nekk lañ yoroon daanaka dem na waaye yonent bi rek moo yor kéemtaan goo xam ni saalihun li kulli zamanin wa makaan jamono ju nekk dafay dafay nekk day des te mooy alquranul karim alquran moomu nag di waxu yàlla bi mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jaamoo yàlla ci jàng gi ñu koy jàng waaye nag mu nekk loo xam ni lu nit ak jinne tële la ci indi lu mel noonu donte ni dañuy jàppalante comme ni ko yàlla waxee ci biir it ndigal yàlla nekk ci ak ay tereem waaye yàlla sunu boroom xamle ni képp ku topp ndigle ya te jaaree ko ci alquran mooy diglee alquran te mooy diglee yàlla. dem aljana waaye ko fi bàyyi rek wala iyaazu billaah mën ngaa dem ca safaan wa ci biir téere bi it yàlla def ci ay mbóot ak i sekkere yoo xam ni ñi koy jariñoo baada aoudu billahi min alsheytaani rajim afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaaluha aaya boobu ñu baree bari soññ na leen tey ci alquranul karim ndax yàlla dañi ndax du ngeen settantal alquran wala dañoo kasse seen xol ya kon loolu liñ koy déggee mooy kuy settantal alxuraan dañuy ibbi sa xol lu ne mën nga ko ci am yàlla def ci ak saafara shifa yàlla dem ba ni sax léegi ngir nga bañ a détaaya amul lu ma bàyyi lu ma indiwul ci alxuraanu karim kon ku la ci gën a settantal yàlla gën ko ci ibbil ay fatux léegi nag doomu aadama yi nag bi ñu demee ba réere loolee nga xam ne moo taxoon a jug alxuraan jàpp ni kat léegi koomam àdduna rek moo tax nit ki war di dund ba nga xam ne nit ki bu nekkee ci dara sax amu ca koom ñu baree bari dañuy taxaw daal ni est kii li muy nekk nii dëgg la wala boog est-ce que mi ngi koy doxal yoon ndax bu koy dañoo jàpp ni ku koy doxal yoon rek kon war nga ci am wërsëg wala war nga ci am xéewal ndax dañuy dem sax banaan naan teraangay nangam teraanga yi ma amee ci lii nangam nangam kon boo ci amul teraanga nit ñi ak seen gàttu dégg day mel ni ndax fi mu toll yonent yàlla ayuba ñu leen ko fàttaliku. bi ko yàlla tegee na toom yu metti ya teg ko feebar ba ñu bari dañu ne est-ce que kii ab yonent yàlla la te effectivement yonent la waaye yàlla mooy baaxoo di melo mela melokaan woowu lay defoo ak gaayam yi léegi nag bu demee ba nit ki jàpp ni moom jàng alxuraan gi muy jàng sax da cee war a am koomuk àdduna jàpp ne benn araf bu mu wax ci alxuraanu karim dañ ko cee war a fay jël alxuraanu karim wala tasharu bi yi thamanan xalilan mel ni ku koy commerce te lépp loo ko mën a jaayee bañ jox la ko na la leer lu néew la te boo ko seetloon sa digganteeg sa borom lu ne mën nga ko cee am kon li waral tey dëgg dëgg alxuraan lim leen waroon a jariñ jariñu leen ko mooy dañ koo jël bëgg jaaree ci turam moom ngir bëgg cee am koom ak àdduna man doomu aadama daf may daf may gis daal ni ma sëñ Basiiru coono yi ngay daj ci alxuraanu karim ah est-ce yaa ngi ciy am dara ma ni ko waaw maa ngi ciy am dara mun ma ah man gisuma sa dund sa dund dara ma ni ko li ma ciy am mooy nit ku ma xool xelam dem ci alxuraanul karim est-ce que mën naa am lu ëpp loolu ndax nit mën naa am ay milliards jëndee ko loolu ba ba am njëgam kon ma ni ko maa ngi ciy am lu rëy tey maa ngi tax nit ñi di nafar alxuraan kon loolu doy na sëkk alku googu nga wax nag ba tey mi ngi am xam nga lan mooy xalku xeetu Seydina Muhammad ñun li ñuy xaar ci ñun mooy nga am yëg-yëg di yëg yàlla soo nee allahu akbar sa xol teewlu sa borom ngay ñaan yàlla yàlla di ko def ndax yàlla dani ñaan leen ma ma may leen kon lan moo tax ngay ñaan yàlla yàlla mayu la kon seen na ngay ñaanee la yow xal ku doy na ci yow yëgoo yàlla buur bi ngay jaamu xamoo ko amoo benn yëg-yëg boo am ci sa borom loolu doy na sëkk ab xal ko kon xeetu Seydina Muhammad duñ leen alagee ay alag di di di di rëg-rëgi suuf ak ay di leen faat ak nangam déedéet waaye alag ñu lay alag mooy dañuy def xijaab muy ab kiiraange sa digganteeg sa borom te loolu jàpp naa ni moo gën a kawe ci ak ci ci ak euh, alag ndax yow mi nga xam ne yàlla mi ngay jaamu muy sa buur ñu wutal la kiiraange def ko sa digganteeg moom ba yëgoo dara ci yàlla soo nee allahu akbar sa xel ci àdduna lay nekk ba niñ cey jógee sooy jàng alquranul karim amul lenn loo cay yëg ci sa digganteeg sa borom mënatoo jooy sax ngir yàlla innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun yow amatoo sax luy rapport boo amatee ak sa borom amoo benn coordination boo am ci sa borom xalku googu doy na sëkk xalku te loolu ku ko mën a def mooy ki nga xam ni dafa bàyyi alquran ginnaaw ndax sëriñ Touba Xaadimu Mustafaa nee na képp ku bàyyi alquranul karim ginnaaw wala boog nga cay doxee ni cee ca war a doxee dafay xamal ni yii benn la ci jàpp mooy bàkkaar yu bari wala rëy-rëylu ak bari caaxaan wala boog sukkandiku ci ci doomu aadama yi ak bari biddaa kon doy na sëkk ci xalku ñu bari na dañoo jàpp ni yàlla mën na laa alal sax bari la nga bari alal ñëpp jàpp nañu ko am bari alal alkoo waaye bari alal te mënoo tari benn saar bari alal am xijaab sa digganteeg sa boroom yow doo yëg yàlla nit du wax ci yàlla sa xol yëg dara doo ñaan yàlla yàlla faale la kenn lijjantiwu la bàyyi la ngay dund sa dund googu loolu dong doy na xalku kon alku googu ngay wax am na ba tey waaye nam doon mel bu njëkk ak ni mel léegi ñoo bokkul kon sëñ alaaj njaga laaj baa ngi noonu tontu laaj bi boog mi ngi noonu macha allah jërëjëf euh, euh, Serigne Bassirou Gueye jërëjëf itam ñi ñu àndaloon jëf itam Aji Ali Ndiaye Maritalia bëgg lool alquran yàlla na yàlla dolli ndam di leen jox rendez-vous ba suba ak jàmm nag ñu continuer ak Serigne bi ndax liggéeyam bi nag ci lañ war a jëm taxawaay beeg yitte ji nga xam ni kii moom borom pas-pas la Serigne géey Gueye Badar moom alaaji Serigne géey raay mu sedd tabaarakallah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidil awalina wa sayidil axirina allazi lam yuqlaq misluhu bika lam yabdu mislal musawa bokki teddi ginnaaw bu ñu santatee yàlla julliwaat nañu ci sang-sang yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaaraat tey baal ak ñëpp di leen baalu di wax ni rek noo ngi àndaat ak yéen ci sunu mission bii ñu tuddee ganu islaam ki leen koy defal seen xarit xaaj njaga sekk di ko ànd ak ay ganam xam naa bala ñuy sori ñaan yi ñu doon ñaanal néew yi tëdd ci bàmmeel yi ñu defalaat leen ñetti xul huwallahu ahad benn bu ne ànd ak bismillahi rahmaani rahim ñu def ko te dellu siwaat incha allah waaw kay di ñaanal mboolem ñi ne ci hôpital yi te feebar ñi ne ci cellule prison yi ñuy dox am na naqaru xool yàlla na yàlla woyofal musiba yeeg balaa yi nga xam ne dafa jug réew mi yàlla na ko yàlla seeyal sànni ko ca géej ga ci dara daraja yent bi bala ba ba dootul lor kenn ci Sénégal yàlla def ci jàmm ci réew mi raxas xol yi tappale ko ñëpp ne ci jàmm barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax jàmm la sëñ Tuubaa waxoon rek ne xaw ma lu ko gën fii xaw ma lu ko gën fanu jëm loolu yi yàlla nañ ko yàlla defal bokk yi ñu dellu siwaat nag ak sëñ sa Basiiru Géy Badar moom euh, sëriñ Alaaji sëriñ Géy raay mu sedd sëriñ bi nag tey dañuy dugg nag ci liggéey bi nag mooy alxuraan ji nga xam ni yow maam yi ñoo ko bàyyi ci yow dañu lay gis ci TikTok yeeg Facebook yeeg internet ni ko gars yi zalonee moom noonu nga ko zalonee mais ci beneen facette beneen facette loolu bëgg naa nga ñëwal ma ci dëkk yi nga ci jaar yëpp ak idée bi fan la jóge ak euh, xalaat bi ndax gis nañ ni da ngay dem fenn euh, interroger nit ci alxuraan mu wax la da nga yaa ngi mel ni sax kuy dem ci daara ji dem daara ji bëkk dem ba Podor nga demoon xam naa di ci profité ji ci sant suñu waaja Njaay ndax yitteyam la ca defal yooyu yëpp nag lu mat lu am solo la yu mel noonu di la jàppale ci liggéey bi parce que jël sa oto dem fii ba Podor paas sa essence dégg nga ngir alxuraan génne sa xaalis xale ya ko tari nga may leen bëgg naa daal liggéey yooyu liggéey yooyu yëpp nga indil nu ci dëkk yi ñu ci jaar ak taxawaay beeg idée bi nag laa bëgg a xam fan la la jóge nan la la dugge ak lën nga ci yëg euh, sëriñ bi euh, muy taxawaayu liggéey boobu euh, maa ngi lay nuyuwaat. alhamdulilah macha allah sëñ Alaaji Njaga tabaarakallah alhamdulilah macha allah moom idée bi moom ni mu ñëwee daal euh, mën naa ne dafa am sama benn magum mag moo xam ni dafa mënoon alxuraan lool ma dem nag bi mu commencé jaay daanaka ay juróomi weer la di ko laaj ci alxuraan gis ko lu baree bari fekk boobu ci mbooloo lañ nekk ma ne ko waaye sëñ bi yow yaa ngi commencé fàtte alxuraan de mu ne ma déedéet du ma fàtte ma koy laaj muy juum di juum ma mujj gi nag mu ne ma ah man de kon ndekete fàtt naa alxuraan ma daal di toog ñaari weer dem fa mu ne ma nafar naa de fi mu toll nii de ñemewaat naa la ma ne ko acca ma commencé di ko laaj mu tontu lépp ma ni ah kon lii est que kii bariwul ñu mel ni ñoom ñu mel ni moom ñu nekk Sénégal ma daan ni ah kon léegi naa tàmbalee def loolu waaye nag du ma yem sax ci lu waaye naay dugalaale ay neexal rek yoo xam ni daanaka du ma wàññi dara ay 5000 lay doon ay ay ay 10 000 yu demee noonu ma gis ni bi ma ko njëkkee def ci benn marché fàllu ku ñu naan sëñ fàllu ndeysaan maa ngi koy nuyuwaale sax Euh, dama koo jël mu daal di juum affaire bi naqari ko mu dem deysaan dem dem nafari ji nafari ji damaa ñëw rek romb ko marché zinc mu jàpp sama loxo bi ni ma tey moom bala ngaa dem di nga ma jëlaat vidéo ndax da nga nafar nangam ak nangam ndeysaan ma laaj ko mu daal di tontu tontu gu rafet a rafet rafet ma xam ne nag kon lii aw yoon la ma ni lii kon duma ko bàyyi ndax maa ngi fàttali nit ñi alxuraan tey ñu baree baree bari mokkalaat nañ euh, yusikumullahu nga xam daa bokk ci aay yi nga xam ni dama koo woon liggéey bi di ko laajte mais fi mu dem naa ba ñemeetuma koo laaj ndax ñu baree bari dellu nañu waat mokkal ko te tàmbaliment bi yóbbu naa ko fu baree bari kenn mënu koo tontu wala boog fàtte woon nañ ko kon daal jubluwuma ci lenn lu dul fàttali nit ñi alquranul karim xamal leen ni tamit nekk ci marché yi di jaay tamit warul tee nga téye sa alquran ndax gis nga ni demoon naa mbuur ba ma fa demee maa ngi fa fekk ku ñu naan saaliw jaxate wala aboo jaxate moom avant 2000 mokkaloon na alquranul karim waaye yàlla defi mu téye alquranam ba tey ma fekk ko ci marché mbuur ba loo ko laaj tontu waaw keroog bi ñu demee sànq sax yaa ngi naan podoor waaye mi ngi nekkoon euh, Matam ndeysaan waaye foofu daanaka sorewul Podor wër a soogi bañ demee tamit gis nga góor googu ñu fa gis nga xam ni quatre-vingt-quinze la moo ko loon alxuraanul karim waaye téye ko téye nu rafet woo xam ni la ma ko laaj lépp da koo ton tont bu rafet ndeysaan noonu gis nga dem nañ sax ci koo xam ni quatre-vingt la mokkal alxuraan ña ngi ko jëlee ndar ah nga xam ne dëkk yooyu yëpp dem nañ fa ngir lan ngir fësal alxuraanul karim waaye ngir fàttali nit ñi alxuraanul karim ngir wanaat Sénégal beneen facette bu ñuy wanee Sénégal ndax ñu baree bari tey euh, dañuy jël rek seen caméra di wane li bon ci réew mi di wane lu bon ci réew man nag dama ne saa yu ma taalee sama caméra moom li ma bëgg a wan ñenn ñi ma bëgg a wan nit ñi ci réew mi mooy réew mi ba tey alxuraan mi ngi fiy des dangay gis ni damay gis ay xale yoo xam ni tey bu doon Europe la wala boog bu doon sax ci réew yu naari la tey xale yoo ay millionnaire la ñuy doon te maa leen di génne sama caméra ah ñu doon ñoo xam ñu mën alxuraan la wala ma génne jigéen loolu nag li ma ciy wane mooy ah xale bi jàngi alxuraan ba noppi doo koy jàngi leneen maanaam du ko yàqal dara waaye tamit di xam leen ni tamit nekk jigéen teewut a jàngi alxuraanu karim waaye tamit ba tey it nga gis ni marché yi ñoo xam ni ndeysaan liggéey bi ñuy a mat cinq cent mille koo ci fëgg dënam day fees dell ak alxuraanu karim ñooñu tamit dama leen di bëgg sagal ndax dangay dem ci benn marché jël fa nit wallahi keroog ba ma demee wërsoo gi xale ba ma fa jël ñu koy wax Moustapha Fall ah bi ma koy laaj góor maanaam ay mag mag dañoo ñëw di ko longu naan ko bis ni tey def naa sama soppe xale bi di jaay mbuus ñu ne ko ñun sax suñ soxlaatee mbuus ci yow la ñuy ñëw jënd mbuus nga xam ne yow sagal nga nitu alquranul karim ci ci biiri nawleem loolu tamit dafa am solo ndax ñu nekk ci làmb ji ña ngay jàppalante seen biir ah ñu nekk ci way wi ña ngay jàppalante seen biir waaye kon tamit ñun ñi nga xam dañoo nekk ci alquranu karim kon yell na ñu jàppalante suñu biir te mooy sagalante sa ku neex di sagal sama room ci say biir biiri nawle kon daal idée bi noonu la ma dikkee wax dëgg fa yàlla tamit ma ma ciy dox di ko def ah, am ci pas-pas bu rëy waaye tamit am ci yéene ju rëy sama digganteeg sama borom ndax bi ma koy tàmbalee dama ni ko yàlla lii rek laa ci nam mooy ku ma gis rek na xelam dem ci alxuraanul karim ne nit ñi nafare jiwaat alxuraan ngir sama jëmm ji na nit ñi ibbi jiwaat kaamil moo tax bu njëkk ma daan laaj sax dama naan leen dem leen ibbi kaamil yi nga xam ne même boo xamul question bi sax jàng nga ngay jàng ci kaamil bi rek wallahi dekkalaat nga alquranul karim waaye am nga ci tuyaaba ci jàngoo ngay def kon daal loolu rek moo waral dox bi ma bëgg ko lool nag mu neex ma nga xam ne coono yi ma ciy daj yéguma ko yëguma coono yi ma ciy daj ndax bëgg gi ma ko bëgg a tax na da gis nit ku bëgg doole rek jugee géeja waaye ba parcelle ngir lan ngir wuti doole nga xam ne bëgg ko bëgg moo tax mu koy mu koy def te waaye bu ko keneen doon ñëw ko jox ma paas man tamit looloo tax moo tax sàkkuwuma ci dara lu dul gën a siiwal alxuraan ci réew mi donte ni tasaaroo na fi waaye gën a fàttali nit ñi ni leen na da ngay gis koo xam ne dafay mokkal alxuraan lu yàgg nekk ci marché bi waaye day dem ba jàpp ni ba tey mokkal gi mi ngi ci moom waaye soo ko defee noonu rek wallaahi boo ñëwaatee day nafar taxaw foo xam ne fu dëgër la ni laaj ma lu la neex bu ko defee nag ah fesalaale tamit ni doo ngay daara maam nekk doo nga daara taxul nga doon ko yaafus nekk dongay daara nekkul nga doon ko ginnaawee ndax tey li baax ci réew mi lépp mën nañ koo fekk ci loxoy donga yi su ma ñëwee ci yooyu laay waxtaan ak ñoom gën a yokk seen courage wan leen ni daal jàng alxuraanul karim ak liggéey moo fi nekk ak jaamu yàlla tey góorgóorlu ci lee alxuraanul karim digle ah jamono ju nekk ndeysaan demagul nañ dëkk yu bari dem nañ Fatick dem nañ Kaolack dem nañ ba Ziguinchor dem nañ ba Sédhiou dem nañ Kolda dem nañ Matam dem nañ Tamba dem nañ Kaffrine ah dem nañ euh, Saint-Louis dem nañ Louga ah dem nañ dëkk yu bare baree bare ngir alquran macha allahu rabbi te foo ci dem rek da nga fa fekk ñoo xam ne ay kànfóore alquran la ñuy doon ñoo xam dañ lay bëggal ci alquran karim soo koy alquran di ci bëggee ah loolu yëpp ñuy jug di dem pintoo ñu bari dañ naan dañ cee war am nangam dañ cee waaye li am solo mooy boo bëggee dem nga jug am wér yaram goo ca demee ñun fekke wuñ xare badar waaye war nañoo xare ci alquranul karim te nag kontaan nañ ci neex nañu lool nii muy doxee tamit bëggee nañ ko nii te it liñ ci doon sàkku jàpp naa ne yàlla def nañ ko yàlla def na ko ndax nit ñaa ngi nafar alxuraan ngir suñ jëmm ji te ku ñu gis tamit xelam dana nekk ci alxuraan kon daal alaaji njaga laaj bi mi ngi noonu tontu laaj bi tamit mi ngi noonu macha allah. man nag loolu laa bëgg nga nga indil ma ci bu baax parce que xam nga léeg leeg boo dee questionné nit ci alxuraan xanaa dafay fekk yow te alxuraan dégg naa dafa am juróom-ñaari jàngin yow mi nga xam ne yaay juge bi yow rek lay doon te yow la laay gis du ma gis keneen ñëw jàppale ci ci ci ci juge bi xanaa am na kenn ku may seen fan yi mais mais mais yow miy juge bi ndax juróom-ñaari jàngin yooyu ndax nit ñi dañoo bari ay daara bokkuñu ay njàngin bokkuñu nangam te mag ñett dañ da nga daan gis nit ñi dañ daan laxas dem jàngi fee arut kee jàngi mantix kee jàngi fee alquran nangam nangam xeeti jàngin yooyu nga xam ne du bokk xam-xam yi du bokk waxin yi du bokk ndax yow da nga koy mokkal ba noppi wala wala wala wala rek da ngay yor sa système mu bopp ak idée bii nga wax ni moom nga def ba ba ba ba ba ba ba muy yegg fenn fii ban jubluwaay nga ci am ban jubluwaay nga ci am. macha allah suñu laaj njëga alhamdulilah rabil alamin waaw man nag su may dem ci régions yi man rek may ànd waaw comme ni nga ko waxee noonu rek alxuraan moom daa bari jàngin daa bari jàngin lool waaye fii ñu nekk ci Sénégal moom ñaari jàngin ñoo fi gën a siiw te mooy riwaayatul wars nga xam ne ñi ëpp ci Sénégal moom lañ jàngee ndax daanaka moo fi jiitu ci am njàngin. tey ñu boo demoon Maroc moom nga fay fekk Égypte moom nga fay fekk Mauritanie moom nga fay fekk ba Sénégal daanaka côté yooyu yëpp moom la ñuy jàngee waaye nag am na ñoo xam ne riwaaya Hafs la ñuy jàngee ak ñu tuuti xoolum kon nga gis ni ñetti riwaaya moom yàlla dimbali nañ ci ñu mën cee téyel nit ci ñetti yooyu moo tax amuñu ci benn jafe-jafe bu fekkee tamit yeneen xam-xam yi nga xam ne alxuraan mi ngi koy da da koy soxlawaale yooyu tamit yàlla dimbali nañ ci bari na ci luñ gëstu ndax bari na luñ jàng tey it yàlla def na ni jàng nañ sax école sëñ la euh, ba yàlla dimbali noonu jàng nañ ba am bac université Anta Diop sax def nañ fa ñaari at waaw euh, arab it lugatul arabiya jot nañ cee sonn lool jàng ci lu baree baree bari ba mën koo jàngale ak ilmul miraas nga xam ne mooy euh, xam-xam bi nga xam ne moo jàll ci wàllum dono waaye daal nga gis ni man maa lay téel maa lay laaj waaye tamit li ma lay laaj lu ma maîtriser la ndax alxuraan moom samay mbir la te dama ko bëgg lool sonn ci lool tamit waaw moo tax damay ñëw su ma ñëwee man maa lay laaj incha allahu rabbi waaye tamit maa lay téel <laughs> maa lay laaj maa lay téel ndax Sénégal moom ñetti riwaay yi doo fekk am na riwaay yoo xam ne nag du lu ma maîtriser lu mel ni euh, Hamza euh, ak yeneen riwaay waaye ñetti riwaay yi moom doon na yoo xam ne mën naa cee téel nit te Sénégal ñaari nga fi fekk xooloon sax ñu néew a néew a néew daara yu néew bu dee am na fi doxaguma sax benn daara ñuy jàngale xooloon wala boog mu doon seen programme normal waaye daal boo fi demee dangay ngay fekk ñuy jàngee riwaaye wars wala ñuy jàngee riwaaye xafs te ñoom ñaar riwaaye yooyu yëpp yàlla dimbali na ma ni mën naa cee teel nit alhamdulilahi rabbil alamin kon daal jàpp naa ni moom loolu rek moo mooy mooy boo demee ci wàllum téele bi bu demee tamit ci wàllu jubluwaay bi comme ni ma la ko waxee woon sànq rek dama la koy confirmer mooy du lenn lu dul bëgg a jottali alquranul karim ci ñëpp ndax ba ma demee zone de Pakao ndeysaan gis naa fa yu daw yaram yoo xam ni euh, su ma yàlla dimbali woon dëgg-dëgg ma bëgg a taxawal alquraanu karim dëggantaan foofu laa koy yóbbu muy doon ay soose yoo xam ne ñu bëgg yàlla lañ ñu bëgg a jaamu yàlla lañ ñu bëgg a jàng alquraan lañ waaye nag da ngay gis ni des na bu baax a baax a baax a baax ci wàllu maxaarij ba ci wàllu njàngin wax ci wàllu yu baree baree bari maa ngi euh, nuyuwaale sax ña fa fekkoon foofu ca Pakao Mankano ndeysaan dem naa ba fekk leen fa ah, dem naa foofu ay kañunku ay dëkk yu baree bari ngir lan ngir alxuraanu karim ak xool jàngin yeen nan la fay doxee mu doon daal loo xam dama koo bëgg jubluwaay bi nag mooy loolu mooy nañ nit ñëpp xam ne alxuraanul karim waxu yàlla la waxu yàlla kenn waru koo fàtte jamono ju ne dañ ko war a fàttaliku nee naa leen nag sama téléphone bi maa ko moom saa yu ma ko taalee moom danaa fexe ba gis ku man alxuraanu karim wala koo xam ne dana jéem ci alxuraan ngir ma dugal ko tàbbal ko ci internet bi ñëpp jot ñu baree bari na di ko safoo wax dëgg fa yàlla mu yegg foo xam ne sax wallaahi jàpp ma ni woon dana yegg foofu Sénégal am ay góor yàlla sëñ Alaaji Njaga ay góor yàlla yoo xam ne dañoo bëgg alxuraanul karim mu jaral leen te bi ma duggee ci liggéey bi ci laa ko xam fu ne lañ lay wax dem ñoo xam ne dangay dugal kenn ku jàng alxuraan ñu la di jooy man pour man Sénégal yëgguwuñu woon foofu ndakate weesu nañ foofu ci alxuraanul karim kon jubluwaay bi rek man dama naan sax liggéey bu yeggee fii wallaahi jubluwaay bu sell ngir yàlla moo ko yeggale fii ndax ba may tàmbali mbir mi dama ne yàlla leen dong laa jublu mooy ne nit ñi fàttaliku alxuraan te ku ma gis na sa xel dem ci alxuraanu karim tey ñaata nit laa tax ñu ñu ñu ibbi seeni seeni kaamil ngir nafari xaw ma nu mu toll kon mbir mi tey bu yeggee fii du lenn lu yéeme lu nekk ci yow lu dul yéene bu sell boo am moo tax damay soññ ñëpp ci yéene bu sell doomu aadama lu muy dugg ne yéene ja sell ci digganteem ak boromam bu yéene ji sellee rek mbir ma amul fu mun munta yegg ndax tey fu ne la ma nit di woowee ci alxuraanu karim dëkk bu nekk dañ lay woo ndeysaan am na jamono jële ku ma woo sax koo xam ne dañu ma man damaa génnoon ci diine wallaahi damaa génnoon ci diine waaye yàlla def na ne duggaat naa diine alhamdulilah waaye léegi sa émission yi rek laay wéttalikoo naan ma su ma sañoon ba nga ñëw fii sama wet di ma jàngal loolu rek jaral na ma lu nekk ndeysaan ma ne ko nag yàlla baax na yàlla na yàlla def jàmm rek waaye daal xam naa ne jubluwaay bi daal mu ngi noonu te it téel bi tamit noonu lay demee man maa lay ñëw laaj la waaye man tamit maa lay téel euh, macha allah rabbi tey li ma lay téel lu ma maîtriser la leen loo ca juum danaa xam ne lii ak lii nga juum bu ko defee ma gàgganti la bu ko defee ñu daal di continuer rek daal di dem mu daal di saan baawan daal di sarsara rek suñu <laughs> laaj njaga waaw daal laa koy doxalee mu neex ma loolu nag ma ciy dox jamono ju nekk fi mu toll nii benn dëkk ma dese benn région moom ma dese bu ma demagut te mooy Podor Podor mooy bi nga tudd sànq mooy Podor incha allah rabbi fa war a dem su ma demee tamit def na ma doon def rek interroger gars yi ci alquranu karim ndax comme concours nafar boobu ñuy wax euh, bëgg naa koo taxawal ginnaaw bu ñu màggalee ba noppi di ci woon ak ñëpp ñi nga xam ne ay nit alquran lañ xam naa ne loolu daal la incha allahu rabbi jubluwaay baa ngi noonu mooy fàttali nit ñi alquran waaye téel bi tamit noonu lay demee bu fekkee tamit ci riwaaya yi Sénégal wax naa leen ñetti riwaaya yooyu rek mooy yi nga xam ni moom lañ fiy jàngee waaye riwaaya boo ci jël nag day doon boo xam ni ci ñett yooyu mën naa ko fee téele ba nga xam ne boo ci juumee dinaa xam ni kat lii nga ci juum Euh, tey yàlla def na tamit ci wàllu xam-xamu tajwid jàng nañ ko ba xam lépp loo xamante ni lu làmboo ci biiru tajwid wax dëgg fa yàlla xam nañ ko mën la ci teel tamit macha allah mu doon daal suñuy yëf di di di di di di di remercier ñëpp nag ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ñi ngi safoo mbir mi nga xam damaa saf ñoom tamit ñu koy safoo moom lépp doon lu saf rek te neex lépp doon alxuraanul karim macha allah suñu laaj njëga kon tontu baa ngi noonu macha allah. am na solo tabaarakallaahu xam naa <laughs> li may ñëw mooy ngir ñu tëjee émission bi loolu lan mooy say projet nag ci yëf yi parce que tam du rek ci nii nga ko bëgg a jàppe mooy di paas di dem ci barab yi nga xam nga nga ni war naa la fekk am waruwaay bu baax woo xamee ni foo ci bëgg a dem rek tudde ko uh, watat alxuraan wala leneen wala leneen xam naa loolu moom dama ciy interpeller gars yi nga xam ne dañoo bëgg alxuraan rek ñu mën koo def uh, te xam naa doo ko bëgg waaye man maa ko ñaan uh, ndax doomi El Hadj Sëriñ moom war naa ko demander lu bari tey maanaam Euh, objectif bi jàpp naa ne am na loo ci wax mais fan nga ko bëgg a yeggale tey nga xam ni concours alxuraan yi ne ci Sénégal yëpp yow dafa mel ni am na ci yoo ciy waajal am na loo ci soxla am na noo ko bëgg a doxe euh, ak fan nga ko bëgg a aj ndax nit ñi duñu ñu jikki ba yàgg ñu ñëw jàppale la ci loolu est-ce que loolu doo ko demandé wala nangam nangam pour nag taxawu la ci euh, maanaam correcté bi walla fexe ba fexe ba fexe ba jàppale la ci laaj yi fexe ba jàppale la ci tontu ndax lenn lu mbooloo di defandoo mu muy mooy ëpp solo lu kenn def fan nga ci bëgg a dem. waaw jërëjëf suñu laaj yi Ndiaga waaw fi ma ci bëgg a dem mooy comme ni ma la ko waxee sànq rek sagal ci. donga daara yi nga xam ni mokkal nañu alxuraanu karim waaye nekk ci marché yi di taaba taaba di jaayantu looloo tax may dem ci dëkk yi ndax dama am concours boo xam ne dama ko tuddee nafar concours bi nag ñi ma ko jagleel mooy ñi nga xam ne dañoo mokkaloon alxuraanu karim waaye nekk ci marché yi ba noppi téye seen alxuraan ba tey di jaay looloo tax ma dem ci raison yëpp fenn fu ne ma jël fa kenn bu ko defee bu raison yi matee incha allahu rabbi dama leen di dajale fii ci ndakaaru 6 laa ko bëgg a defee ginnaaw gàmm bu soobee yàlla nga xam ni kenn ku ca gañe incha allah bëgg naa xéewal ya nga cay amee incha allah boo ko jëlee ba yóbbu yóbbuwaat ko ci jaay bi nga doon jaay dina gën a doon lu xéewale nga xam ne lii alxuraan moo la ko teralee te ñi ciy participer ñëpp bëgg naa leen defal ay xéewal yu doy war loolu nag bañu ma ci ku ma ci jàppale koo xam ne doxinam mook sunu doxin ñoo yam ndax maa ngi ci woo ñëpp ñi nga xam ne ay niti alxuraan lañ waaye ñëpp ñi nga xam ne mbégum alxuraan seen mbég la waaye ñëpp ñi nga xamante ni tamit suñu sañoon alxuraan nekk ca kaw fii ci Sénégal di fees ñooñu ñëpp maa ngi leen ciy woo ndax loolu bëgg naa ko organiser organisation boo xam ne bëgg naa ci am ñu baree baree baree bari ñoo xam danañ ci teew ndax ay kilifa yu bari bëgg naa ñu teew ci waaye nag boobaa moom dinaa wut ab jury boo xam ni incha allah ñooy ñooy àtte ñooy def ay laaj ñooy def lépp suñu fa jógee tamit bëgg nañ koo def sax international bëgg nañ mu génn Sénégal ñu dem fekk moodu-moodu yi fañ nekk ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi fàttali leen tamit ni leen génn Sénégal mokkal jugee Sénégal warta tax ngeen fàtte alquranul karim fekk leen fu ñu mën a nekk bëgg nañ ci it gën a taxawal alquran comme jaaree ko ci taxaw daara gi nga xam ni ab association la boo xam ne maa ko taxawaloon ak léegi am na trois ans boobu tamit li muy dox mooy dem ci daaray cosaan yi di xool lañu bëgg di ko note suñ ñëwee wax ko ñi nga xam ne ay soppee alxuraan lañ ñu daal di jël seeni ñaq ñu dajale ko dem yóbbu ko fa daal leen di lijjanti loolee def nañ ko ci sookaanu ginnaaw mbay def nañ ko ci ndiiri mbay ginnaaw Pekes daara yooyu dem nañ ci Badar Gueye dem nañ ci Pakaaw Mankano keroo rek ñu ngi mujjee ci daaru Muxti ci daara yu soxna Kunta Mbàkke keroo rek ndeysaan ñu ngi defar mbaar mu am solo foofu ci euh, sookaanu nga xam ne ñoom amuñu woon mbaar muñ jàngee may sant ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ci def seen wërsëg ba loolu mën a jàppandi kon daal mbir mi moom fiñ ci jëmaat tamit mooy alxuraan ci alxuraan lañ ci jóge te fa lañ jëmaat ndax alxuraan day lu yaat loo xam ne kenn du ko jeexal concours boobu mooy li nga xam ne moom moo taxaw sama kanam nga xam ne benn dëkk rek moo ma dese ci région Sénégal yi fu ma demut mooy Podor te incha allahu rabbi maa ngi jàpp aw yoon dama koo jàppoon sax yëngu-yëngu mi moo taxoon ma bàyyi ko ba mu gën a dal di ñaan Sénégal yàlla saxal fi jàmm te it ñi fi nekk gën koo roose mu gën a màgg ba lam ñuy génn ci meññeef ñun waa Sénégal ñu jariñoo waat ko moom daal loolu mooy li ñu ci bëgg insha allahu rabbi ñi ngi ñaanal yàlla nag ñëpp ñi nga xam ne ay soppee alquran lañ ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi jamono ju nekk ndax wax dëgg fa yàlla sénégalais seetaanuñ ma ci benn yoon wéetuma ci liggéey benn yoon ni ma jàpp woon ni noonu lay demee demeewul noonu ndax ñu baree bari ñi ngi ma ci woo fu nekk di ci jàpp jamono ju nekk kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin kon daal sëñ alaaji njaga concours nafar bi moom mooy li nga xam ne mi ngi taxaw suñu kanam dajale nañ raison yëpp fu nekk jël nañ fa kenn ginnaaw gàmm insha allahu rabbi lañ leen bëgg a dajale si sees foofu nag maa ngi ciy woo ñëpp ñi nga xam ne ay soppay alxuraan lañ ñëw teewee ko sagal alxuraan waaye tamit ñi nga xam ne ay dongay daara lañ woon ba tey yàlla di leen teral fii ci àdduna maa ngi leen di tàllal loxo ni leen ñëw leen ngeen jàppale ma ci ba ñu mën a teral seen mbokki donge yi ba buñ delloo ca marché ñu ñee leen ngir alquranu karim ñu xam ne tey teraange yi ñu am ñu ngi ko amee ci alquranu karim ndax concours yi fi doon njëkk daanaka ay xale lañ doon jël te xale yooyu buñ ko gañee daanaka lañ fa gañoon mën nañ koo bañ a jariñoo ndax seeni waajur ñoo koy yor kenn xamul fu muy jaar ba mën nañoo màgg ni dañ dégg rek ni gañe woon nañ fi concours waaye concours bi ñi ma ko defal moom mooy ñi nga xam ne dem nañ ba dooni mag di liggéey tey boo demee mbuur ka ma fa jël ma nga yor place am di jaay boo demee Kaffrine maa ngi fa jël koo xam ne daanaka ay affaire écouteur ak nangam ak nangam nangam lay jaay kon fenn fu ci nekk daal jël naa fa kenn koo xam ne jàpp naa ne moo fa gën a rafet alquranul karim ngir lan ngir taxawal alquran fii Sénégal waaye ngir teral niti alquran yooyu nga xam ni ndeysaan ci alquran lañ def seen àdduna bépp passé ko ci kon tey alquran war na leen a teral ñu taxawal leen biir si sees daal leen di teral ngir alquranu karim soppay alquran yëpp daal dafay ñëw ñu jàng alquran ñëpp kontaan lépp saawan baawan incha allahu rabbi loolu nag maa ngi ciy woo ñëpp maa ngi leen di woo tàll naa leen seen loxo sama mbokki donge yi sotle leen ma ci loolee sotle leen ma ci loolee incha allahu rabbi macha allah sëñ laaj njaga kon yaakaar naa tontu laaj baa ngi noonu yàlla na ñu yàlla defal barke ci barke alxuraanu karim alxuraan nag moom mooy sunu moom lañu bëgg ñi ko bëgg bëgg a ànd ak ñun aca bismillahi rahmaani rahim keneen ku ñu woo ci leneen lu dul alxuraanu karim nag moom mënuñu la caa wuyu ndax ñun ci alxuraan rek lañ nekk alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf euh, sëñ Basirou Gueye xam naa ni tabarkala <laughs> loolu moom xam naa ne <laughs> kii waaye nag euh, nun euh, kuy def lu baax ci alxuraan mu jaral ko coono ñuy itam daf ñuy jaral lu bare bare bari yal na yàlla dolli la ndam sëriñ Basirou géey la ñu àndaloon bu alaaji sëriñ Gueye raay mu sedd bu Badar borom wilaaya borom baatin xam naa nag man tam bëgg naa nga wax ma rek ci wàllu baatin de wilaaya yi ndax fi ngay dem yëpp.